wa naxwu xayin lu mel ni xayin nga xam ne yaa gi benn xarafu ko dawlu xayu wa tayu wa lay nga bëgg koo def tur woo xam ne da ngay askanee laf jëme ci kon da ngay fatxu saanihi yajibu nga mu mujj di xayawiyun ndax dañuy nettale ni bi nga ne xaya jenn yaagan fokk mu soppiku alif nga ne xayaa war a indi yaaw nasab ñuy kasaat ko li ko jëkk te li ko jëkk alif moom du nangu xaraka ñu xalbu ko alif googu waaw xayawiyu moom la ñu fatxu saanihi yaji war du du dellool dellool alif ga nag waawan waaw in yakun ndegam dafa nekk xuli ba ñu wëlbatikoon ko ci waaw lu mel ni baatu tawaa yat wi soo andi woon masdar ba ni tayyun tayyu moomu turu lëf la loo xam ne da ngay askane jëme ci ndax bu la neexee def ko turu nit bu la neexee def ko turu leneen nee na kon tawa wi jun ngay wax ndaxte ah soo fata soo soo bëggee kile comme tayyu yaaga yaagu jëkk ga comme xayu mi nu wax da nga koy fata min tay soo ne taya boo demee ne taya fekk nag itam yaagi waaw a doon cosaanam li annahu min tawaayatul fokk nee na na nga ko delloo ci waaw ndem ci la ñu ko xalboo ko woon nga ni tawawiyun baat bi waaw yi la ñu xalbu woon yaa li ko def mooy dafa waaw ak yaa dañu faa daje te ca jëkk sukkoon kooku nag ci xaida tasrif bi fokk waaw wala ñuy xalbu yaa tawaayat wi dégg nga nga xam ni faala la juy mutaaddi qiyaasu masdaram faalan tawaa tawyan lawaa lawyan ñu ne waaw ak yaa bu ñu dajee te jëkk sukkoon fokk ñu xalbu yaa gi waaw waaw yaa nga ni tayyan ak layyan léegi nga def ko mansub ilayhi fokk waaw day del si ndem moom la woon nga ni tawawiyun ak lawawiyun mooy war dut waawan in yakun su fekkee dafa nekkoon xuliba ñu xalboo ko ci waaw wa alamat tasniyati xisif maanaam mansub ilayhi su fekkee alamatu tasniyati dafa caane ñaari xaraf yi nga xam ne mooy mandargam tasniya te mooy alif ak nuun wala yaa ak nuun moo jokku ca naka noonu alamatul jamci dana dana ko wax léegi nee na kooku ixdif xasafal alam alamat tasniya alam bi maanaa alamatu alamat tasniyati li nasab bi pour ba ngay askane jëme ca baat zaydaani muy nag wa mislu za kem loolu xasab googu wajaba war na fi jam i tasxiix bu doon jam mulakar salim bu doon saydoona wala mu annas salim ni ki hindaatu nee na dana war nga xasaf alaamatul jami baag alaamatul tasniya ba nga ne tey zaydiyun su ko defee ci zaydaani ak saydoona ak yëpp ak zaydina zaydiyun rek nga ci wax lant googu moom duñu ko faale su dee hin daatoot hin diyun rek ngay mujj wax da ngay xalal su ko defee foofu faale yu ñu fi lantoog muzakkar ak muannas faale yu ñu fi lantoog mufrad ak jam ndaxte mansub ilayhi rek la ki ngay askan nga am soxla mansub ilayhi amoo ci soxla nga ni jaa zaydi yi waaja rek nga jublu ama zaydi man nga xam ne moo doon ba maam jëju ko askane zaydoona la tuddoon wala zaydina ak zaydaani faale wu ñu loolu wa thalitun min naxwi tayibin xudif nee na xarafu ñetteel lu mel ni tayibun tayibun dégg nga rubaai taa ngi fi ak ñaari yaa ak baa nee na kon nag ah bu ñetteel ba la ñu war a xadaf rek bàyyi baat bi noonu nga ne tay bi nisbatun ila tayib dégg nga loolu mooy qiyaas tay bi ah nee na kon wa shadda génn na qiyaas walis boobu qaida taiyun nisbatun ila qabilati tayiin tayiin kooku tayiyun ni ci waxee taybiyun tayiyun moo doon qiyaas arab nag waxuñu ko taiyi lañu xaatim ab taiyi taiyu nisbatun ila tayi jaarul ci qiyaasam ndax qiyaasu taybiyu qiyaasu tayib ci nasab moo di qiyaasu tayi ñoo tolloo wasnu waaye kii moom chage day chage day bari ci seen bu dee jam u dana ci am tasniya am na chage tasxiir am chage chage foo dem fekk fa lu jaarul ci xiyaas ta si génn na ta yun génn na xiyaas xaala kawnihi maqulan bil alif muy lu ñu tudde lu ñu waxee alif bañ a lu doon xiyaas benn yaa bi dañu koy xadaf rek ñoom nag wala ñu xalaf ko mu xal bu ko alif maanaam dañ ko faroon bàyyi daal ne pay yi waaye da doon ñaari yaa pay yi in pay yi in ñu xal bu ko wa faalun wa faaliyun في فعي ووفو علي وفا علي في فعيلة التزم بجك بدا ينكو ورفتا فعلي في وزن فعيلة نكي حنيفة بنو حنيفة حنيفة اسم قبيلة فعيلة الأسود أسكن جميك آه كوكو فعلي لنشي وكم كموم صحيح العين لا كن فعلي سدا سدا mu'tal bil ayni wala muda'af al ayni kooku nu bàyyi ko ba àgg ca nga ni kon xanafiyun wa fu aliyun it fii fu aylata xutim fu aylata ni ki juhaynatu ismu qabilatin nee na soo ko dee def mansub ilayhi fa aliyun ngay andi nga ni fu aliyu juhani juhani joo dégg nisbatun ila juhaynata xutima war a leef na ko ci loolu wa alxaqu yéegal nañu ci atte mu allala min lu ñu ragal laamam ariya goo xam ne rafle wu na ci haawu tanis ni ki du faaliyun rek la maanaam xanafiyun maanaam lu mel ni ki nga xam ne haawu tanis nekku ca daal moo xam failatu la woon nga xam ne failun dong la wala fuaylatu la woon nga xam ne kii moom fuaylun rek la nee na ki nga xam ne laam nga dafa ràgg aywa te haaw taanis rek moo ko tee doon failata wala fuaylata nga xam ne failun rek la wala fuaylun te laam nga ràgg kooku yéegal nañ minal misaal ni ci yaari misaal yi mooy bi ñu daam njël benam bi ñu ko fataa kooku yéegal nañu ko bimaa ca wasnu ba nga xam ne uliya jox nañu ko taa lu dëgg dégg nga xaliyun failun rek la aliyun fai maanaa yooyu failun rek la ñu lu dëgg waaye lu mel ni ki masalan qusayun masalan qusayun fuailun taa rek la moo ko wuuteeg fuailatu yooyu moog lu ñuy joxtaa ñooyam nisbatun fa nisbatu ila aliyin failin te laam ga rag alawiyun ngay wax nisbatu ila fuailin te laam ga rag qusawiyun ngay wax nisbatun ila qusay loolu mooy maanaa wa alxaqu muallalaani min almithaalayn min failata wa fuailata koo xam ni ariya min attaa'i mu loon fuailun wala failun te laam ga rag yéegal nañu ko bimaa ci was ni ya nga xam ni óoliya joxees na ko taa ni nga def ni nga fataa seen ayin noonu nga koy def wa tammamoo maa kaana kal ka tawila mu allalaam nag waxoon naa la démb ni xarafu mu allul ayni mu all ak ak mudaaf ci buntu tasrif toujours ñooy bokk atte wa tammamoo matal nañu maa kaana ka tawilati su doon failatu te ayit ga ràgg ni ci tawilatu kon kenn du xasaf genn xarafu ràgg ba déedéet kenn du wax tawaliyun di xasaf yaa ji déedéet da ngay wax tawiliyun wa hakada maa kaana kal jalilati fi kawnihi mudaafan jalilatu ku ne xam na ne min jalla mudaaf la woon su ko defee kon yaam gi foofu nga koy bàyyi de dégg nga ndaxte da ngay wax aljaliliyu ndaxte ka ràgg ayin ni ki tawi la soo xasafoon yaaham leneen da lay dal du dëgg kon it waaw gi fokk li qaida war nañu ko soppi alif ngir fataa gi ko dawlu su ko def nga wax la nga ne taa fekk xasaf nga yàgg bëggoon ko fataa tawaliyun kon tawaliyun taaliyun ngay mujje wax te kon mu sore cosaan bi aywa jaliliyun soo dindi woon yàgg def ko ni ni nga daan def ci فعيلة غني جلالي فإنهم كرهوا توالي المثالين تبان تنياري لام ak laam gi noonu foofu dara doxul seen diggante moom moo jekkul ci seen waxin ñu ne bu ñu la wax jalaliyun jalaliyun ñu ne jaliliyun moo leen ko gën wa hamsu zi maddin yunaalu fi nasab maa kaana fi tasniyatin lahu intasab ah hamsu bi ñu waxee ne woon nañu hamsa maqsuur lañ doon wax ci xublaa ak yooyu fañ ko war a xabafe kese su fekkee dafa juróomeel ak fañu ko nga xamee ni yaari anam dagan na ca ba nga xamee ni dafa ñeenteel te njëlbeen ga doonu sukkoon dégg nga kon loolu waxoon nañu ko niki xublaa aywa waaye bu doon mamduut nag nee na niki xamraa u nga bëgg ko def mansuub ilay kooku leneen ay am lu dul xadaf nee na kon yunaalu fi nasabi dañu koy jox ci askan maa kaana atte ba nekkoon lahoo ñeel ko maan tasaba la askanoo woon lahoo ñeel ko ci tasniya ak jamu muzakkari salim te foofa xoolal su xam saga dee gu gu cosaan ni ki qurraa un bàyyi ko fa noona nga ne qurraa iyun su fekkee ni dafa nekk di jàmbur mën a dafa nekk di taanis rek ni ci saxraa u nee na kooku na nga ko na nga ko qalbu nga ni saxraa wiyun lu dëgg su fekkee ne nag dafa nekk di maqlub an asli ni ki kisaa un ak xayaa un kon yaar yëpp dagan na ca nga ni kisaa aani mbaa kisaa waani du dëgg du loolu nga waxoon loolu waxoon fële ah kon it noonu ngay def ci nasab bi nga ni kisaa iyun wala kisaa wiyun wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukkiba masjan wa lisaanin tammama idaafatan madduwatan bismin awab أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهر وانسب أسكنين لصدر جملة تنجل بين جملة سفكين جملة دنكو دف أو تر نكي شاب قرناها برق نحره يجاري جملة معنى ينيو تخلق معنى جملة دفكو أو تر تيكوشين جملة في الأول fi'il ak faa'il la ñu woon mu doon turu alaf ngay askane jëme ci kon askaneel li sadri jumlatin ci yow yaari misaal nga ni shaabiyun nisbatun ila shaaba qarnaaha baraqiyun nisbatun ila baraqa naxruhu wa sadri ma rukkiba masjan ak njëlbeenu loo xam dañ ko tarkibul masjidi ki baala bakka nga ni baaliyun xadra mawta nga ni xadr xadriyun walisaanin askaneel jëm ci aji ñaareel joo xam ne tàmmama dafa matale idaafatan ak laafe mabduwatan ju ñu tàmbalee bibnin ci ibnu niki ibnu abbas aw abin wala abu niki abu bakr nee na kooku booy askane jëme ci woowu tur askaneel jëm ci ñaareel ba wansub lisaanin ay lil mudaaf ilayhi tàmmama joo xam ne dafa mottali laafe goo idaafa goo xam ne ña ngi ko tàmbalee ibnu aw abu ibnu abbas abu bakr nga ne abbasiyu wala bakri aji ñaareel waaye doo wax ibniyu aw ma te doo wax lépp itam kenn du ne ibnu abbasiyin aw ma wala booy aseen kene jëme ca la nga xam ne at taarifu maarifaal ko bi bi saani ci aji ñaareel ja wajaba dafa waroon ca cosaan ni ki xulaamu zaydin soo ko defee alam tudde ko dara tey mu nekk alaman bil galabati mi nga xamee ne ibnu abbas genn nit moo ko moom ca doom yi xulaamu saydin soo ko defoon alam bil xalaba nga xam ne boo nee xulaamu saydin rek ñu ñu ni diwa ngay askan jëme ca ba tey kon na nga askan jëme ci ñaareel ba nga ni zaydiyun du dëgg waaye doo wax xulaamiyun ah loolu nag fokk nu ni ndegam da nga koo soppi def ko alam amma soo ko bàyyee muy mu daaf ak mu daaf ilayhi ca cosaan nga xam ne walaam nakira la sayd ma ay faal ko kooku ñaari baat yu bokkul maanaa la ba tey kooku comme du alam na nga bëgg rek ngay def su fekkee ni loo xam ne xulaamu saydin la nga askane xulaam ba rek nga am soxla bu boobaa mën nga ne xulaamu jun wala saydin nga ne saydi jun du dëgg ci googu ba nuy wax kay mooy bi nga jëlee xulaamu saydin def ko turu alam rek kon nag saydi yu rek ngay wax ko moo tax taarif bi saani ca ca njaal benn kat dañu ko deful alam lañ wax amma bi mu xasee doon alam taarif amatul foofu lépp alam bi rek mooy maarifaal boppam moo tax aw maa lahu aw aw maa wala say askan jëme ci la nga xam ni wajaba war na taarifu taarifu la wali bi saani kooka yaa ni ca cosaanu wat ba moo tax mu yor du dëgg waxul ba nga ko ci jëlee def ko la am saydu min alamu tur de kon saydu yu nga yor dégg nga wan sub askaneel li law wali jëm ca bu jëkk ba ca mu daaf fii maa si waa haadaa ci lu bokk la yii yii mu la waxal dégg nga on da nga askane jëme ci bu jëkk ba ci bokkut ak yooyu nu waxoon ni ki nga lu mel ni ki imru ul qays nga ni imru iyun du dëgg imru ul qays bokkut ak yooyu nu doon wax du doo du loo xam ni mu daaf mu daay lay mi qays da doon moo maarifal imru déedéet imru ul qays aw tur noonu loolu na nga askane jëme ca bu jëkk ba ni ki dégg nga maalam yoo xaf labsun féeg ragaluñ ca lant nag su fekkee mu daaf ilayhi ma dafa bare lool ay ndend te mu daaf ma te mu daaf ilayhi ma moom du amu ko ñu ragal ca lënt ni ki abdul ashhal tur lay ci arab bu nga xam ne dañu askan jëme ca kon waxal ashhal yi ndax soo ne abdi te abdul ashhal nekk foofa abdu manaaf nekk fa abdul muttalib nekk fa abdul abdul manaaf nekk fa lënt day dikk soo dee wax abdiyun kon léegi mu daaf mi nag dañ ko ba def ci mu daaf ilayhi nga ne ashhaliyun manaafiyun muttalibiyun chamsiyun abdou chams mu ngi foofu abdou manaaf nekk fa abdou mut kon nga askan moo la ni feeg ragaluñ ca lant kon bul wax abdiyun waxal manaafiyun wala muttalibiyun wala ka abdil ashhal nga ne ashhaliyun wajbur bi raddi laami ma minhu xodif jawaasanin lam yaku radduhu ulif fi jamci tasxiixin fi jamci tasxiixi aw fi tasniya wa xaqu majburin bi haadi tawfiq nee na lisim su fekkee ni xaraf wu mujj wa laam nga dañu koo xadafoon te kenn daawu ko delloosi ci boo koy jamu jamu tasxiix wala jamu jamu tasxiix daal jamu tasxiix boo ko déggee rek mooy ji ñu damatewul ju taksiirul taksiir sa kasarul kalimati moo di xilaafu tasxiixihi waaw jamu tasxiix kon mulakkar saalim ak maanan saalim rek dégg nga lu mel ni yadun daal ak damun dégg nga lu mel ni yadun su fekkoon ni yaa ngi askan jëme ca def ko aw tur di askan jëme ca dégg nga kooku delloo si laamu baat ba du doon waajib dégg ndegam nee na daawuñu ko delloo si ci jam uy tasxiix ya jam u tasxiix bi su fekkee kenn daawu ko ca delloo boo ko bëggee def muzakari salim ak mu annas salim nee na kon boo ko dee askan booy boo delloo si wala nga bañ a delloo si kon yadun dégg nga soo doon askan jëme ca su la su la neexee ni yadiyun wala yadawiyun lu la ci neex wax ndax yadun kat na nga xam ne laamu baat ga yaaguñu xasab la yadd yén moo doon cosaan waaye nag kenn du ko delloosi su fekkoon da nga koo defoon tur doon koo jamu muzakkar salimit yadoona dong ngay wax ak damoona ndegam defoon nga ko tur ay góor di ko jamu ci jamu tasxiix dégg nga amma li tax mu ne tasxiix nag da ngay xam ne jamu taksir delloosi laam nga ci jamu taksir xayru mu'tabar da kay yadu soo ko jamoo taksir ay dii ngay wax gisuloo yàgg nga di afulun jam yadun yaduyun la woon soo ko jamoo afulun nga bëggoon ni ay duyun ñu ne ah dàmm lu jiitu yàggu mujj noonu su ko defee nga soppi kasra nga ni ay din fil ay dii ay diyahun gisoo yàgg ni ñu ko delloosee waaye ci jamu taksir la jamu tasxiix nag lanu lanu lanu compté su fekkee ci jamu tasxiix kenn daawu ko ca dellu yadu nag damun soo ko defoon ay tur askani jëme ci yadoo naag damoona rek ngay wax boo koy tës ne yadaani du ngay wax yadaani tu yadaani ngeen di gis ak yadayni xaslul yadayni su fekkoon ni lam barga dikk na ci tës ne looy wax yadayni ngay wax waaye andi woo ko gannaaw daayee su ko delloosi kon ak delloosi yom ci nasab jawaaz la su la neexee ni yadiyun bu la neexee ni yadawiyun yàlla woon ci cosaan nag waaye xam nga ni waaw lay doon ndax da ngay fataa daal gi soo fataa daal gi yaa yaa ga soppi ko alif mu nekk yadaa alif gu mujj noonu ñu di ñu yaaw na sa dik dañ koy xal bu waaw toujours kon yada wii yun ndax duñu ni duñ fa bàyyi yàgg naan yadi yi yun seet seetal loolu ay- ay kasra yu du jeex yaa ñett yaa yu tegalo fa di moom la ni waj bur jàngal baat bi raddi laa mi cis delloo si xarafam bu mujj wal waj bur da nga naan jàngal maa baat ba nga xam ne xasifa minhu xadaf nañ ca na nga ko jàng bi raddi laa mi ci delloo si laamam dem dañoo xadaf woon laam nga ni ki nga def ci yaddu loo loolu waajib la wala du waajib mu ni jawaasan la rek jawaas la de ci kaw in lam yakku su nekkut radduhoo delloo si ga xasifa ulifa jumi noon ko ci jamu tas bu fekkee da daawuñu ko delloo si ci amu tasxi kon léegi jawaas la ci yow amma bu ñu ko dee delloo nag ah kooku foog nga delloo si ko moom la ni wa xaqu majburin bi haadi xaqu loo xam ne dañu ko daan jàng bi haadi ci yaar yii ci jamu tasxiix ak tasniya ah kooku xaqam mooy tawfiyatul matal delloo si laab nga su fekkee bu ñu ko doon jamu tag taxi tasxiix dañu koy delloo si kooku nag fokk booy nga delloo si ko yow itam dégg nga foog nga delloo si ko ah, lu mel ni ki tey Mm. abun ak axun soo ko doon tas ne looy wax abawaaneeg abawayneeg axawaaneeg axawayni ah kon kon ah, kon kon da nga koy delloo si fokk nga ne axawiyun ak abawiy du daganati nga ne abiyun ak axiyun ndax kooku olifa miinees na radduhu fi jami jami tasxiix mbaa ci tas ni wa xaqu loolu mooy li mu ne wa xaqu majburin bi haadi xaqu lu ñuy lu ñuy jàng ci yile ci ñaari jamu tasxiix yi wala tasniya aqam ci nasab mooy tawfiyatul matal ko delloo si laab li ki abawi ak axawi mu ne ba tey wa bi axin uxtan wa bibnin binta alxeq wa yoonusu aba xazatta nee na soo dee askane axu uxtu yéegal ko ci axu da nga daan wax axawiyun waxal waxal ci uxt uxawiyun loolu mooy madhabul jumhur wa alxiq yéegalal bintan bibnin alxiq uxtan bi axin wa alxiq bintan bibnin nga ni ni ngay waxee axawiyu te kooku passé nanu ko dégg nga ngay waxee uxawiyu des maanaam nisbatun ila uxt ni ngay waxee bana wijjun bi nisbatin ila ibnin noonu ngay waxe bina wijjun nisbatun ila bint loolu ala mazhabil jumhur xil- ah, xilaafu kon yéegal nga uxtu ci ax yéegal bintu ci ibn loolu mooy mazhabu jumhur mazhabu yunus nag minal bisriyin bañ na nee na nee na uxt ak bintu moom seen lafzu boobu da nga naan uxti yu ak binti yu loolu la ni wa yonus yonus de rek ah bàyyi na wàcc na ak jumhur yaag seen mazhab moom aba bañ na xadfa taa xadaf taa ci uxtu ak bint fa yan fa yan fa yansubu ilayhima ala lafzihima fa yaqulu uxtiyun ak bintiyun jumhur lu ñuy wax uxawiyun ak binawiyun ilxaaqan lahuma bi axin wa bibnin la noo dem wa daa'ifi thaniya min sunaa'i thanihi zulinin kala walaa'i su fekkee ni baat ñaari xaraf rekk la pour wu ñuy askan jëme ci ñaari xaraf rekk la te xarafu ñaareel wa doonul wu wér melul ni ki bal bal kay suñu ko defoonu tur ngay askan jëme ci amul amul problème da nga naan baliyun nisbatun ila bal lu dëgg waaye nag xarafu nooy la ni ki laa laa lu dëgg su fekkee dafa mel ni ki laa moom mansub ilayhi lisim la joo xam ne xarafu ñaareel wa ñaari xaraf la tewu ñaareel wa xaraf wu nooy la xarafu ràgg la nee na kon nooy def nee na na nga ko ful laa alifa ca mujj dolli ko alif alif ci gannaaw alif lu muy doon hamsa du dëgg alif ci gannaaw hamsa alif foog ñu soppi ko hamsa nga ni laa iyun nisbatun ila laa mooy moom la ni wa daif dubleel a saaniya xarafu ñaareel min suna iyin ci ko ju ñaari araf yoo xam ne saanihi ñaareel ba zoolinin borom nooyaay la xarafu ràgg la ni ki laa ak laa iyun ma ngay xam ne laa mooy mansub ilayhi laa iyun mooy mansub bi kon laa iyun ngay wax dégg nga kalaa ci li fi mu junuy wax askanam kalaa iyib mooy la ñu askan wa in yakun kashiyatin malfa adim fa jabruhu wa fatxu aynihi iltuzim wa in yakun bu bu nekkee maa lisim joo xam ne adima ñàkk na alfa afa dañoo xasafoon faawu baat ba mu ne loo xam ne li kashiyatin dafa mel ni shiyatin ah ah siyatu ji firi maanaam aw melo couleur yu wuute ndax cosaanam washi wishi yun dégg nga wishi yun wishi yun moo doon cosaan bi ñu xadaf ni ñu ni ki weedun min waada ñu dindi waaw faaga doon waaw wàccee ko xaawu taanis ci mujj siyatun nag mujj ga dafa ràgg moom lisim ju mel noonu ah nga xam ne ñàkk na te ñàkk na nje xarafu njël benn te laam nga dafa ràgg nee na soo dee askan jëme ci kon jànkote mooy delloosi la nga xadafoon waawa ak fata ayin ga nee na kooku dana war ndax mujj gu ràgg ga nga ni kon boo delloosee looy wax wisha wiyin li mu wax daal baatu siyatun su doon tur woo askan jëme ci wisha wiyun ngay wax da ngay delloosi faawu baat da ngay fata ayin ji mooy siin fi su ko defee xarafu ràgg woo mujj soppiku alif nga ni wisha alif bu ca yaawu askan toppee noo koy def xal bu ko waaw ndax fokk nga kasra ko te xarak alif nanguwul xarak ah te soo ko bàyyee ci yaa musiba am kenn du ko mat soo nee bëggoon ni wisha yi jin lu dëgër loolu xam nga ni duñ ko wax yaaguñu kas kasaraat yu ànd ak maanaam kasra yu ànd ak ñetti yaa loolu duñ ko kon lu luy pexe alif ga def ko waaw nga ni wisha wi yun delloo si nga laamu baat gi ñu xasafoon ay wax xal bu nga kii ba yaa ndax xarafu ràgg la wuteeg idatun ji firi daal du dëgg su idatun soo delloo soo delloo si woon kii kooku doo doo doo doo du tax nga xal bu ko yaa daal xarafu wér la du dëgg kon kon da nga koy bànnoona maanaam kon dafa ni bu fekkee dafa mel na siyatu ci ràggu mujj la ni da ngay fokk nga jàng ko delloo si laam nga